salaatu allazi fi kulli sahrin wa fi safar hamaani ala maahin maal absa wa safar wa bi xarmatik matlabul fawzayni hab lana saadata daarayni wa bi xarmatik matlabu shifaa'i hab lana shifaa'a min kulli daa'i wa bi xarmatik muqaddamaati amdaax hab lana سلاحا وفلاح وبسر نور دارين نور دارين نور دارين الله الحمد لله والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وخدمه ومن والاه maa ngi tàmbali samay kàddu ci tur suñu borom di sant yàlla di jullu ci ab yonentam ak ñoom ak saxaabaam ak liggéeyaa konam ba di nuyu waa euh, Tawfekh Production ak mboolem téléspectateur di am mbégte loolu nag ci tontu sa laaj bi xasida nag naa la wax mooy lan ci ñetti définition bu dee ci loxa mooy li nga jublu wax li nga jublu rek <coughs> ndax baatu xasida mi nga jublu ci xasada yaqsudu alxasdu bu dee ci arud nag mooy ñi nga xam ne ñooy yittewoo xam-xamu way ñoom dañ cee wax ay wax am na ñu ne ñetti bayit jëm kaw mooy xasida am na ñu ne juróom-ñaari bayit jëm kaw mooy xasida am nañu ne fukki bayit jëm kaw mooy xasiida waaye nag al mashhur am ñu wax ne euh, fukki bayit ak juróom-benn jëm kaw mooy xasiida kon lii mooy xasiida ci wàllu arut sëñ bi nag léeg-léeg ñu gis mu am lu mat fukki bayit ak nangam sëñ bi tuddee ko xittaa waaye léeg ñu gis sëñ Tuubaa lu mat fukki bayit ak ñaar mu tuddee ko xasiida kon day mel ne kon day jàppale kon xasiida mooy lu mat fukki bayit euh, jëm kaw wala juróom-ñaari bayit jëm kaw kon waaye nun nag fii bu nu waxee xasida ci millier murit ñi ngi ci jublu mbindum sëñ baax yi mu way wala mu ser ko jëmale ko ci yàlla di ko tagg ak di ko sant ak di ko jégglu di tuub ci moom di toroxlu ci moom di ci sellal sunu borom di ci wane ak xubuur itam waaye mooy lim bind moo xam way la wala wesar la jëmale ko ci euh, tudd yàlla ak wéetal yàlla ak yi mu def ngir di jihaad ci yoon yàlla ak yi mu def ngir di ñaan suñu borom te mooy yi mu def jëmale ko ci rasulullahi di ko tagg di julli ci moom di jaayanteek moom di ci leeral sunnaam di ko ci haddiyaal di ko ci digal di ko ci liggéeyal te mooy xidma bi nga xam ne moom lay wax naan axdimuhu bin nasmi wa nasri maa dumtu xaadir ilal kalaam waaye mooy yi mu def jëmale ko ci julli ñi di leen ñaanal di leen laabire di leen dénk muy li ñuy jàng di ko jaamu yàlla di ci sàkkoo jege yàlla di ci sàkku tiyaaba muy bégloo rasulullah yi di merloo seytaane muy fu ñu koy jàngee muy doon foo xam ne saytaane dafay daw mu doon lu gaaw ci defar nit ki ak àggale ko ci yàlla waaye bokk ci kim kimtaanu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kimtaanam yi mujj ak bokk ci kawtee fi suñu borom kon kii jàng xasida mi ngi tudd yàlla mu ngi sant yàlla mi ngi tagg yàlla mi ngi ñaan yàlla mu ngi tuub mu ngi dellu ci yàlla mi ngi jihaat ci yoon yàlla mi ngi jullu ci yonent bi sallallahu di jaayanteeg moom di ñaanal jullit ñi euh, dafa mel ne euh, kon xasida lu yàgg la mhm. nit ñi yàgg na ñoo way mhm. ñii way am na luy nekk seen gannaaw loo xam ne moo leen di dafan am na am dafian boo xam ne mooy ne seen gannaaw di leen puus pour ñu war a bind war a war am euh, source boo xam ne fa la ñuy fa la ñuy tànkee ngir di mën a bind moo xam mu jëm ci wàllu addina wala mu jëm ci wàllu xam-xam wala ci lu mu mën a jëm mhm. bu dee sëriñ bi nag moom moom ana ci ban source la daan référé wu buy bind bindam ana ci ban source lay bàyyeekoo foofu yi boo ñu ci doon dikkal lan. bala maa ñëw ci question boobu rek ñu xam ne xasida moo ñu dese ci sëñ Tuubaa mën ngaa wax sax mooy sëñ Tuubaa moo tax sax sëñ Tuubaa di Xaadimu Rasuul ndax mu ne fa inna ne li tëjee daal di abdun wa xaadimu lil Mustafa bil mathi wa salaati turil awadi kon xaadimu Mustafa gi da koo doon à travers tagg gi muy tagg yonent bi ak di julli ci yoon bi sallallahu alayhi wa sallama xam sëñ bi mi ngi ci def mi ngi ci xam xasida yi mbooleem li ko yàlla def na ko ci biir xaside yi li ci ëpp mboolem am njàngaleem def na ko ci biir xaside yi mbooleem orientation def na ko ci biir xaside yi mboolem lim dénkaane mi ngi ci biir xaside yi kon kuy bind na ku ne am nga say source sëñ bi nag ay source am bari na waaye danaa ci lim tuuti ba ci njëkk mooy alquran sëñ Tuubaa nee na damay bind di toxalee ci alquran sëñ Tuubaa lépp loo gis mu wax ko man tooxu xulaar na wala mafhumul quran loolo moom wax na ko fu bari bari ba ca topp suñu borom da koo jox xel mu leer ak ñawu xal ñawu xel lub bi mu nawwarun bi nuuril wahyi wa xaadali xeyril xolum muhyi nee na dakkaaw xaqali kaada mislil wahyi sama ñawu xel xaw tuuti mu toll ne e, mu mel ne wahyu ba ca topp suñ borom da koy talqiin li mu bind sunu borom da koy sa lim bind laqana ni fil xatti muxtil wax yi muxtil wax yi walil janaani saana humri laqana ni al muuhi li an bi ayhi bi maa fi di ayhi ilaya wajaxal ujuur wal jasa mulhimu nii fi maa kasabtu rajasa li muy rajas yëpp sun borom moo ma ilham waaye la ca topp day bind di toxalee ci lawxul mahfuus kon lawxul mahfuus ci source sëñ bi la bokk ak xalima nga mooy fa yàlla di bind euh, ak xalima nga xam ne mooy bind fa yàlla di def la muy dogal sëñ Tuubaa nee na aktubu naaqilan min allawhi euh, wa min xalami wa fi xurufi la amin kon yii yëpp ci surtout sëñ bi la bokk te it nag bu daan bind jibril daan ñëw di ko ëppale di ànd ak moom ci bind mi ni nga xamee ne xasaan yonent bi daan wax uxji wa ruuxul xudsi maaka yu aydu ko del juga del jug di ma défendre di répliquer yéexoot yi yéefar yi nga xam ne dañ ma doon ŋàññ si ay way yow itam nga jug di leen di tontu te xam ne jibril mi nga ñëw di ànd ak yow kon lii mooy doon source sëriñ bi léegi bu ñu jàllee ci suñu beneen question mooy objectif ban la sëriñ bi amoon ci li muy bind ndax kuy bind it euh, boo amee foo référé wu it wala foo naanee am na it but boo xam ne moom nga moom am nga objectif boo xam ne moo la tax di bind sëriñ bi bu objectif ci mbindam ana lan lan mooy objectif yooyu euh, sëriñ bi indi na ci yu bare bare ci ab jubluwaayam ci mbind mi man dajale goon naa ci lu mat fanweer waaye dama ciy tudd ñaar ba ñett rek ngir gàttaayu waxtu wi ba ci njëkk mooy sëñ bi da doon bind ngir jëfee ndigal suñu borom suñ borom moo ko jox ndigal ne ko bindal sëñ baa moo ko wax xaada li sadri al alim al bi xarqi aadatin wa xaala li uktuba yàlla mi aji xam moo mat sama dënd mboolem téer yëpp te def ko defin wa xotti baa ba noppi jox ma digal ne ma bindal ñaareel ba lisaanu xaalam conscience am moo ko wax ne ko bindal xaala lii lisaanul xaal alif bi laa tardud min ka fallaahu yaqbila kon ñaari ngi noonu ñetteel ba la ko tax di bind bu dee loolu mooy xaala li lisaanu xaal sama lisaanu xaal moo waxanteeg mën na ma taalifal te bul déng-déng li ngay taalif yàlla dana ko nangu waaw yàlla nangu na ko sëñ bi la ko taxaat di bind bokk na ca beesal diini nee na daxan xilaami wa mi daari li sutur tajdiida diina laxi xaafil atir li ma poussé ma jël sama xalim ak sama laa di bind mooy yeesal diina yabastu uluma diini xatti mujaddidan is naxju nabi is rasmuhu waaw is rasmuhu xafaa la ko taxaat di bind bi sallallahu alayhi wa sallam ak défendre diine nee na yasub an diinika yaa ilaahi xatti wa an xeet bi rasulillahi sama bind day défendre sa diine yow yàlla waaye di défendre deru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mhm. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak di peleedal diine waaye bokk na ci fi may jeexalee ci euh, wàll googu sëñ bi nee na bokk na ci li ma bind li ma tax di bind mooy laabire mi ne fi daan ni ilal xatti an nasiixatu lil waraa kon li ma poussé man sëñ Tuubaa may bind mooy labiré mindi fi man na fanweeri yëf waaye lii doy na ci objectif yi nga xam ne moo ko taxaw di bind te ñu gis ne objectif yu noble la objectif yu am solo la xam nga xasida yi dafa am mm, ay xaaj sëñ bi nag dafa am bu ci tudd waaye am na ci boo xam ne sëñ bi tudd ko ndax daa xam ne ku settantal di def tara euh, di tadabbur mën nga koo génne sa bopp waaw bi nga xam ne nag moom bu ko génnutoon kenn mën na ko bañ a xam moom boobu la wax kon bi may njëkkee bi nga xam ne boo dee setantal mbindum sëñ bi da koy gis da ngay ne mbindum sëñ bi dafa nekk ay xaaj am na ci yoo xam ne nii daa nekkoon wesar sëñ bi ñu way ko loolu ber na ci lu mel ne sindi di lu mel ne eh, toxfato yëpp ay wesar la woon sëñ bi ñu way ko waaye am na loo xam ne sëñ bi da ko dajale da ko fekkoon jël lii fee jël lee fee dajale ko lu mel ne maj ma xunóori ni lu mel ne xisnul euh, abraar yooyu yëpp yu sëñ bi dajale la nga xam ne da leen fee fekkoon waaye nag am na ci yoo xam ne nii moom niti ko tàmbali sëñ bi àggale ko kon loolu ci xaaju xasidi lu mel ni xoqal bu kaaw bayit bu wala baat bu njëkk bi xaadima jaxataka la moo ko tàmbali jox ko sëñ bi mu àggale kon yooyu yëpp ci xaaju xasidi la am na loolu daa fekkoon ansab wala aqtaab wala salawaatu mag ñu baax ñi fi nekkoon sëñ bi ñëw jël ko yeesal ko bu dee xaaj bi nga xam ne sëñ bi moo ko tuddal boppam mooy xaaj bi nga xamee ne sëñ bi moo ko def muy ñetti xaaj lim bind njëkk géej gi mu am lu mu ci wax lim bind ci période géej mu am lu mu ci wax ak lim bind ginnaaw géej gi sëñ bi li ëpp ci mbindam am na xasir yu mu lu jiitu asas waaye li njëkk ëpp ci minam da koy tàmbalee asas ba ci jay sosin mooy xaaj bu njëkk bi la ci des mooy la tàmbalee ci jay sosin 1313 di 1895 ba ci mujjantalu baksasin nga xam ne fukki at yooyu la sëñ bi jàppee fukki at géej gi fukki at yooyu li ci sëñ Tuubaa bind mooy xas xasiide géej gi fi mu toll rabbi maay osaan xat fajaa sëñ banque bi ne bindee ma naan te ci xasiide géej gi la bokk yow man mawlidi xaama ak tasin sëñ baa ngi ko bindee ci géej gi te ci xasiday géej gi la bokk kon mooy fukki at yooyu léegi nag la tàmbalee ci bak sasin ba wam sasin bi sëñ bi di wàcc ci liggéey loolu mooy xasiday ginnaaw géej gi sëñ waa wax na ne xasida yi mu bind ci géej gi tàmm na ne maqaamam mbooleem gaay yu baax yëpp wax na ne mboolem xasiday géej gi daa bokk ci kimtaan yonte bi sallallahu alayhi wa sallam jàng ak jàngale taxa koo jóg moo tax bi mu dellusiwaatee sëñ bi def li ñuy wax tabyiidu maa nusiqa minal xidam te mooy dafa folli la jiitu géej gi ak période géej gi bindaat ko joxewaat ko ñu di ko jàng moo tax jaaribatu maraax bi ñu jàng bokkut ak jaaribatu maraax ba sëñ bi woyoon ci géej gi waaw waaw bi mu jugee ci géej gi da ko woyaat mu dugg ci tabyiidu maa nusiqa minal xidam beesal li nga xam ne dañ koo folli woon ci liggéey bi lu mel ne jas bi bi ñuy jàng moom itam ci tabyiidu maa nusiqa minal xidam la bokk ak lu mel ne mafaati bisi yëpp sëñ bi wayaat na ko ci bu njëkk waaye da ko wayaat bu dee xasiide ginnaaw géej gi nag sëñ Tuubaa dafa wax ne moom wala xasiide géej gi sax sëñ Tuubaa wax na ne képp ko aju ci man na xam ne man sëñ Tuubaa jublu naa ci yàlla ci ay taalif yoo xam ne ma fay def njëriñal jullit ñu góor ñi ak ñu jigéen ñi àddina ak àllaaxira kon gis nga mbindum sëñ Tuubaa njëriñal jullit ñu góor ñi ak ñu jigéen ñi àddina ak àllaaxira du pour sax mu murit dong waaye képp kuy jullit rek góor jigéen yaa ngi ci biir waaye mu ne mboolem li bind ci géej gi liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi sa moom la ak tudd yàlla ak sant yàlla ak jihaad waaye ba ba noppi nag mu wax ne xasiiday géej ginnaaw géej gi moom kawe na lu dul alxuraan ak hadis barke bu mag am na ci ku bëgg a jëriñu àddina ak àllaaxira na farlu ci li nga xam ne bind naa ko ginnaaw xama sahin na bi karamin kon ñetti xaaj yi mi ngi noonu am na ci xasir yoo xam nag tudd yàlla ko tax a jóg yii sant yàlla yii ñaan yàlla yii jihaad nga xam ne xeet yu bare bare la kon mi ngi noonu waaw li ma leen dénk mooy ñu xam ne li ñu yor lu màgg la muy xasida nga xam Sëñ Tuubaa da ci consacré wu dundam gépp di lu mu jëm ci lu mu jëmale ci yàlla ak yonante bi kon loolu ku cee ne war ngaa xam li nga yor li mu doon boo koy jàng na nga laab laabu xadas ak laabu xabas boo koy jàng jàng ko ngir jëmm yàlla képp waaye tamit euh, nga bañ a farfarloo ci xasida yi fonk xasida yëpp ngir jëm Sëñ Tuubaa waaye nag gën ci feesal di ko jàng nga di ko jàng waaye tamit nga boole ci xasida koo mën a jàng bu mu tax keneen koy jàng xasida nga jàpp ne jàngul am na ñoo xam ne xasida ga ñuy jàng képp lañ yaakaar ne mooy xasida ku jàngul xasida googu jàngoo dara te it genn xasida nga xam ne ñaari nit mën nañoo bokk genn xasida ko jàng rawante ci ne asamaan a suuf pas-pas bala mag ñi ñoo leen ëpp lu ñuy jàng ci xasida ci bariwaay te ñu gën a jariñu ci xasida yi la waroon mooy seen pas-pas ak seen pëstéef kon xasida dañ koy jàng ngir jëmmi suñu borom ba noppi nag ku ciy jàng xasida del fas del yéene la nga bëgg ñun nag daa siiw ñu ne kuy jàng xasida doo fas sëñ Tuubaa fas na ba noppi loolu wér na de sëñ Tuubaa fas na lépp ci xasida yi waaye moom mi fas lépp ci xasida yi moo wax ne fan wi maa chihta inda qiraati xasidatan min xasaidi tajjatu insha allah in kaana maa qultu ba'da xuruuji min jolof fasal yéene la la soob waxtu wooy jàng ak xasida sama xasida yi bu fekkee ne xasida yi nga xam ne def naa ko ginnaaw ba ma génne jolof mooy mbàkke baari wala ma wax ko ci at moomu lu njëkk mooy dem mooy bidaayatul xidma ak xamitu man yaxsi bi ne dër kon sëñ Tuubaa moo joxe ndigal nee nañ fas kon xasida yi ñi koy jàng maa ngi laabir sama bopp te di laabir yëpp ñu di ko jàng ngir jëmi sëñ Tuubaa te di ko sellal te bañ ci am parparloo raditu anil mawla taala lasi rabba لمن دوام للذي